mbokki internet yu Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ñun di sàkku rek ñi nga xam ne ay gan lañ ci paas bi ñu abonné ndaxte kat loolu mooy yokk suñu doolee ñu si leen ak xibaar bi bile soxal international sénégalais bi Sadio Mané doomu Bombali ji nga xam ne moo def lu kenn deful defal Sénégal lu rëy moom international bi lee luy tollook ay bis a ngi ne ñu ngi koy waxtaanee ndax day takk jabar moom international sénégalais bile nga xam ni daanaka wax nañ ko waxati ko Pape Sané mi ngi ñuy xamal ni international sénégalais bile di Sadio maane day takk jabar ni ki suba ak jàmm ci dimanche bi kon daal jàpp leen ni Sadio Mané buñ sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot mooy day takk jabar day célébrer li nga xam ne mooy mariage am dimanche 7 janvier 2024 foofu li nga xam ne mooy diwaanu Kër Massar mu nar a nekk mariage bu neex ndaxte mariage la boo xam ne yàgg nañ di ko xaar moom doomu Sénégal bii nga xam ni toj na Angleterre toj France toj fële nga xam ni moom mooy Arabie Saoudi nga xam ne jamono yi la fa la nekk moom international sénégalais bi le nga xam ne moo ñu jëlal Coupe d'Afrique moom nag fas yéenee dem fële nga xam ne mooy Côte d'Ivoire xam ngeen ni kaan bi ay bis rek moom moo ci des waaye jamono yi le Sénégal mi ngi koy waajal bu baax a baax. moom sénégalais bi nga xam ne bërki démboo boo njaay rek la doon ubbi stade boo xam ne moo ko tabaxal dëkkam di waa Bombali foofu la nga xam ne mooy Bombali moom Sadio Mané nag xibaar yi jot day takk jabar dimanche bi 7 janvier 2024 ñu koy ñaanal euh, mun nar a nekk mariage bu neex ñu koy ñaanal euh, sëy bu barkeel ah moom Sadio Mané Info 7 TV di leen abonné te laal cloche bi fii rek la fi ngeen di jotee ay xibaar yu leer wér-wér gaaw.